xale yi làqagul yenn at yi te yàkkam ci seen àdduna ngir bëgg lu mag ña am ñu jiitu leen ba ñu bari di yootu lu ñu jotul ba muy gàllankoor seeni àlloo te fekk na te fekk na la jar rawante waroon naa doon xam-xam bu ànd ak jaamu yàlla bu ñu sellal moo tax lañu ñu war a jiital nay jiitu na ca war topp man ñoo yomb te lu nar a ñëw jëlul gàttandu te loo séentu séen ko fekkoon na muy ñëw kon diine ji ñi féete jàng ak jàngale nañu góor góorlu tey muñ ñi yàlla nattoo ñuy wax ak nit ñi ci wàllu diine seenu noppi warul a yàgg te kilifa diine yi ñu bàyyi xel ci ne jikko yu bari laaj na yeesalaat bokk na ca ya ñu war di fàttalee muy mbirum asaka ak jox ko ña ko yelloo ndax ñu bari ci réew mi ñi ngi génne asaka waaye am na ba léegi ñu xamul ña ko yelloo am na it ñoo xam ne bu asaka ja naree bari du ñu joxe lépp loolu moo waral crise mondiale bii ñuy jàmbat am na ñoo xam ne dañuy coowandoo dong waaye ak jàmbur ya bës ña ko moom la crise bi laalul te lu jamono metti metti am na ku yàq lu mboppam aajowoo kon nga gis ne crise boobu ku ci bëgg a mucc faaw nga nekk muñ te bañ a xeeb bépp liggéey bu dagan ci ab jullit te loo am nga téye ko ak doylu te xam ne jamono ngi joo xam ne wuti du la tax a am kon ñàkk bu mu la yóbbeeg doyadi te boo yëramtaloo ñu faf la jéppi te boo ñàkkee jom it du la tax a woomal la ngay mujje nag mooy mere ku la yëramul te loolu ab sànja la bu loolu wee ma ñëw ci mbirum jigéen ñi ndax jigéen yàllaa ko jox cër bu kawe ba fu mu tudd góor tudd na fa jigéen lu mu togg góor lu ne togg na ko jigéen inna al muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal xaanitina wal xaanitat wa saadiqina wa saadiqat ila aaya kon nga gis ne jigéen cër bi ko yàlla jox tax na kenn mënatu ko suufeel kon jigéen bu suufee moo suufeel boppam ndax néewaa na nga gis jigéeni jullit ji jàng ba dañu réer nga koy séen ci lu ñu koy xeebe moo tax jigéen war naa jàng ba dañu réer bu boobaa mu xam boppam xam li ko war ndax koo xam ne waa ju baax bu naree gane àdduna ci yow la ko suñu boroom di jaarale warees na laa waajal waaye ku ñu waajalul tàggatuñu am poog lañuy àndeek ñoom te ñee ñuy bokkal ci wàllu askan ku ca njub itteel duñu la nawloo waaye bu pënd ba wuree danañu xam ne dëgg du yam akuk neen bu loolu jàllee ma ñëw ci liggéeykat yi ñi génnuwul xamuñu lu mooy lu dul ay tool nañu dellu ci àll bi suuf si yaatu na ndox mi ñëw na te nekk ci capital te amagoo doole yaa tooñ sa bopp ndax bu ndox may wal yaa cay ëpple mbalit ma yaa koy dëkkoo te foo tollu dëkke xultu mere ñépp boo ca boolee di jaayee fu ñuy tere ñu di la ramaas wala ngay wër dëkk yu mag yi di fa yalwaan te mànkilewoo benn cër dellu ca tool yaa ko gën la nga bay lu la ca yàlla wërsëgale nga doyloo ko ngir ñoŋale ko sa dignité ak sa ngor ñi nga xam ne ñoo tànn jàng mécc bu ñu nekk ba nara të seeni wayjur door caa tàbbi te ku ci xas tàmbali njàngum mécc néewalal say soxla te bul soññee ngir beru ndax ka jàngal bu la mi bu la nee demal beru war nga man sab liggéey lay tax sab liggéey mën a jëm kanam nag faaw nga jiital yaari yëpp di liggéey qualité say sàmmonteeg say kàddu ki jóg ngir def commerce na nga teey waaye bu mu la tax a bëgge te sa bénéfice dee ko yen lu mu àttan te marchandise mu ñu la lebal boo werseegul boroom bul ca noos te deel moytu riba tey nangoo génne asaka ma ñëw ci mbirum politique waxuma kenn waru koo def waaye sañ na ma wax ne ku xamul yoon wa mën na laa gàllankoor te fii ci Sénégal bari nañuy politique te xamuñu yoon wa ndax boo seetloo liggéey yu bari yu mën a doxal am réew ñi xamul nu ñuy politiquer sàggane nañu ko ba mu narmeelu kon ñi nekk ci bopp parti yi ñoom ña ko gën a xam ña leen di jàppule nañu leen di artu te di leen wattandikuloo wax yu ñaaw aka noonoo ci seen biir dem nañu ba am ñu jàpp ne politique ki ko man faw aw làmmiñam rëy faw mu nekk ab warkat faw muy fecc kóllëre faw muy lekk alal ju mu liggéeyul kon jikko yii ku ko làmboo boo ko bëggee layal ci politique la ko yóbbe kon du ko jar ci yow politiciens yi nag nañu xam ne li ñu nekke doy na bokk ak nit am réew waxtaan wu ànd ak i pexe tax ñu lay jaay marchandise moo dul waxaale te fu ñu manqué xaalis gàll ci saw loos taxi boo sañu la wonk kon bu ñu ca boolee xor ñooñal ak i reetaan mu gën faa seen coow nag lu mu xumb xumb jëruñoo wallu ndax ñoom ñiy coowoo weesuwuñu ñetti xaaj ñi mësula mos ngóor ak ñi ko mas a mos génnoon te bëgg duggaat ak ki toll ci mos ngóor te doyalagul ñoom ñi ñépp nag ku ci itteem ràññiku ci askan wi daa faloogul te moo ne askan wey fale te ku falu fàtte leen te réew mi bu kenn ku ne defoon la ko war coono yi wàññiku waaye bu fekkee ki doon bàyyi yërëmul mag ki doon bu fekkee ki doon bàyyi yërëmul doom mag yiirul rakkam rak ormaalul magam taalibe yi di santaaf seeni sëriñ ba tax kenn waññeetu leen politiciens yi fexe ba am ñu ci not ay sëriñ ci alal ba nar leen a yóbbe ay taalibe yu gëlëm tax na nag lu bari ci ay taalibe kër ya ñu daa tuddoo kóllëre leen fa bàyyi waaye am nañu fu jëggaani fu ñu mën a suuxate seeni pas-pas moo tax way jur wu ne bu bëggee noppalu ci njabootam nay am yërmaande ci ñoom te bañ a def lu leen di kersaal te te doom ju ne warteefam mooy jéem a teral way juram mag ju ne bu bëggee ay rakkam déggal ko lu ñu am na ko bàyyee ak ñoom te lu mu am na ko nangoo bokk ak ñoom rakk yitam bu bëggee ay moroomam wek ko na ormaal magam ab sëriñ yitam bu soppali koo buur ab dagam lay àndal waaye taalibe bu dul dagu it mënula ànd ak buur kon li mata xalaat mooy jikko yi feebar bari nañu te ñi feebar wàlle moo leen gënal faju moo tax réew mi lu la nit jege-jege ci bokku askan te góor-góorluwul ci lu yàlla gërëm bul ko ñooxu te lu la waay ëpple bu mu la yëngal fi léegi yaa ngi sàmmonteeg sa diine te jullit dafay ragal yàlla te mbiram yépp yàlla doy ko ci ndax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqhu min haysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbuhu inna allaha baalixun amrahu xad jaala allahu li kulli shay'in qadra maa ngi baalu àq ñépp di baal ñépp àq wasalaamu ala man ittabaa al huda